ah ñëw waxtaan ci benn fank boo xamante ni jamono ji xam naa ne Sénégal nekk loo xam ne mu ngi def ba ci réew mi bari na tamit coow mooy lu jëm ci li nga xamante ne mooy li ah, xam-xam bi nga xamante ne suñu borom may na ko yonti yàlla Moussa si itam mooy xarum gé xar xar géej gi am na nag kenn koo xamante ne xam naa ne <laughs> ku si mel ne Kunkande na suñu borom lépp loo xam mus na ko may ulamaaw yi ak may ko yonent yi yàlla may na ko loolu dafa pare na jël na décision pour jour tam xarit ñu tase fële sa géeju géeju Sumbujum mu xar géej gi loolu loolu <laughs> gisee loolu <laughs> xam naa ne day yëngal na dëkk bi waaw Euh, moom doy na waar lool mais Koungheul daal xam naa ne daa yoo xam ne sax euh, bu la ko sunu borom euh, maye yàlla parce kenn du ko jiitu ci ci ci ci te yàlla li may ay li may kii nu mu tudd yi muy yonent yi néew na mo koy may sax li nga xam ne mooy ulama yi borom xam-xam yi. ba ko Moussa bëggee gis sax da ko ne yaa Moussa lan taree nii. man du ma puni du ma du ma unzur ilal jabal ak la ci xew yëpp. kon nag euh, naan da ngay xar géej gi da ngay def li géej gi xar ko du noonu de léegi nag bon comme moom nee na day xar géej gi te tam xarit sore sorewul sorewul. ba joxe date de. ba <laughs> te tam xarit sorewul xanaa ñu toog mais ba ma jàpp ni bëgg ak bëgg ki daal jarul yenn yi jarul jarul yenn parce que tey jii ñu ne yaa fi nangam ak nangam ak nangam da ngay dem ba benn bon boo ko defut ah dootoo am crédibilité. ci bëtu sénégalais yi te loolu dafa am solo nit da nga war a sàmm sa crédibilité sàmm sa dignité yooyu dafa am solo mais yooyu muy def bon da ngay gis ni kii dafa bëgg tey il réussi mais il a réussi mais après le futur li nga xam ne mooy moo moo nekk ci kanamam li nga xam ne mooy parce que boo xoolee Sénégal majorité bi cent pour cent yëpp ñu ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar préfet maa ngi dégg mu kenn terewul xoog ak yooyu xam nga jox nañ ko faveur bi tere xam nañ ni moom mooy mooy loolu daal léegi nag ginnaaw moom moo wax ah ñun mënuñ doo toog ñëpp sénégalais yi toog dañuy toog di ko xaar di ko déglu suuru tam xarit saan ndax xam naa ni <laughs> maanaam ñu nekk ci internet beeg ñi yor site yëpp jour boobu moom balaa ñoo lekk cere dañuy dem taxaw di xaar di ko xaar pour mu pour mu xaar géej gi maa ngi gars yi naan léegi visa amatul dañuy jël car di dem dem Espagne ak yooyu dina xaar géej géej yooyu mais loolu daal xam naa ne daal bon doy na waar daal doy na waar doy na waar waaw. parti sénégalais dañoo xaw a gëm njabar parce que seen xel am na ñoo xam seen xel si day nangu ne Koungheul dina xaar géej. waaw léegi bon boo xoolee moom foofu la foofu la foofu la ko teg. xam na ni Sénégal ñoom danoo danoo gëm jabar danoo gëm affaire u seet affaire u sëriñ xam nga léegi nag bon foofu la mën a jaar quoi voilà peut-être aussi damay jàpp ne mën naa wax wax ci rëccu ko mu am kersa am gàcce ba pare xam nga di insister di persister mënutul dellu ginnaaw mais géej gi moom ndox mi la ko xar yombul de moom xam naa ne <laughs> gi moo am naan île des sax la xar géej gi la ne lay xar xaw maa ngi koy gis ci benn kii muy wax waaye ñii koy suivre boo xoolee majorité bi yëpp dañuy wax ni eh, wax na la ca gannaaw dëgg. Mm-hmm. wax na la ci gannaaw dëgg léegi nag jour tam xarit soo leen sorewul xanaa dañuy xaar déglu ko rek ba xam ndax dana xaar géej gi ndax boo xaaree géej gi moom xam naa ne këram dana bari client moom ña fa nar a ñëw <laughs> dana bari client yàlla na yàlla na yàlla defal jàmmal Sénégal defal fi tawfeex bu baax jaajëf